asalaamaaleykum mbokk yi nuyu naa leen ku ne ci turam ak santam Pa Ousmane Diouf la waat fii ci Gambian Talents um, TV ni ma leen ko dee waxee rek bor bu set su ma toogee xalaat suñ dëkk ak fiñ toll my heart bleeds sànq wàcce ni liggéey maa ngi ñibbi kër. and it's very dark ah, moo tax ngeen gis ma may dawal nii ba pare di def lii ndax awma time su ma àggee kër itte yi duñ ma ci bàyyi waaye su ma xalaatee suñ dëkk ak fuñ tollu rekk suma xol bi dafa naqari ndax bor bu set ñu am luñ déggalu ees loo xam ne dafa jéggi dayo walla dafa wane kéemaante suñ dëkka man li ma gis Banjul neexuma te lu ma naqari dina ko wax ndax am na sañ-sañ ci politique réew mi ni moo demee dama dee wax rekk nañ leen bàyyi suñ xel Gambien si barki dem balaa jógee def vidéo di dàqa di ñaawlu nataal yi nga xam ne ñu ngi koo génnee li di ko jiiñ ne doomi lawyer Ousseynou Dabo miñ wax ne mi Baba Jah génnoon di wax ci moom balaa loolu defoon naa vidéo it waxtaan ak askan bi di wax ci yëfi tribalisme ak nim ñàkkee place suñ dëkka mbokk yi ma ne leen ne suñ dëkka su fekkee ne tàkk na su dee suux na su dee am nañ fa geer walla xeex ñeneenti mbir yii laa wax ne moo ko waral te dinaa ci delluwaat pour fàttali askan bi wax naa leen ne Gambia su fa xeex amee yëfi diine moo ko waral xëccoo diine ak waxtaani diine ak yëfi diine ma ne leen walla boog muy yëfi tribalisme di yëfi xëccoo xeet ban xeet a gën sa morom walla boog mu nekk yëfi politics ñeneenteel ba di yëfi suuf wala land issues <laughs> barki de mbalaa def vidéo boobu ci samedi bi di wax liini nii tey si suba ci Lundi bi wi woke up to the newspapers writing wala di bind ne um, am na as lëf ci diine ñu ñuy ooyee rawdatul majalis nga xam ne tuddoon naa seen tur seen xeex ñoom ak Supreme Islamic Council pour xëccoo ñan ñooy nekk ci boppi diine ji ci réew mi pour représenter jullit ñi ñu dem si newspaper bi ne dafa am ñu ñëw si ñoom ne nañ wax nguur gi ñu edda ñi ci opposite side bi ñi leen a ŋàñña wala ñiy wax di saage di xaste ana diine ana xaste ana islaam ana saage diine ji bi ñoo coow ñoom ñi ñu jiite seen boppa di ñu wax ne diine islaam ñu dégg ko ñu ne yàlla wax ko ci alxuraan rasul jottali ko ne diine islaam moo gën ci diine yi indal diina indal laal islaam am not a li ñu gaay di wax ñoom seen bopp jiite ko suñ taxawee ci seen minbar yi wala ñu organise gàmmo yeeg islamic conference yi ñoom kilifa yi faa toog di wax noonu suñ toogee bay ŋàññante bay xasante bay waxante lu ñaaw ba ku si nekk di dóor sa sa taalibe yi di dóor sa dënna nga xam ne problème la suma maas gi nag suñ génnee wax ko ñu ne xale yu sañ yi moo tax ba daaw jéeg bi ma interview kii di Mamadou Lamine Touré bi former president of the Supreme Islamic Council laaj ko yenn question ci boppam taalibeem yu bari génn tekkuma seen ma messages ne ma xawma lu maa def dinaa ko réccu kii cheikh bi lii ak lii yu bari ñu waxoon ko tekkuma si ngir laajte yi nga xam ne laajoon naa ko ko kon suñ demee ba suñ kilifa yi di xëccoo yëfi diine wala di wax ne fitna dina jog ci réew mi ngir am ñi nekk si beneen side bi kàddu yi ñu leen a sànni kon loolu tey na xel te jar naa xalaat nguur gi ma ne leen ngeen génn na jël seeni matuwaay président Adama Barrow you need to come out more often and talk to the Gambian people lu waay di uyoo daf koy nuru ci jëmma ji ci jikko ji ci tur bi ak ci melo bi waxtu bu nekk ma wax leen ko su dee président yi Gambia yaay Njiti Gambia président Adama Barrow step up to the plate and take up your responsibility if you are the president of the Gambia Gambian people voted you into office some four and a half years ago with the hope that you will tackle all kinds of situations including the security sector Rio mi ni moo demee jéggi na dayoo kilifa diine yi li ma leen a wax yëpp dafa am firnde ci biir weeri koor li ma leen a wax nii waa rawdatul majaalis came out and said di laaj nguur gi ne nañ wax ñi nekk ci beneen side bi ñiy xaste ñiy saage we have had am um, am um, am um, evidences we have had am uh, uh, information and messages coming from both sides su ñiy waxee wax lii ñele wax teggi ko ñiy wax fiti fiti ñele seen taalibe yi wax wax lele si biir weeri koor bi dëkk bi ñoo wax Makumba yaa génn ne nit demaat si newspaper bi génn ne na nguur gi wala ministry of land waxtaan ak am jéem a jël ay jéego ay matuwaay ci seen diggante ak dëkk bi ñoo wax Babylone ndax yëf yi dégg na dayoo suñ bëggutee pour fitna jóg ci réew mi kon su ma leen waxee ne Gambia su fi fitna jógee waxi suuf mun na koo indi waxi. am diine mun na koo indi yofi politique mun na koo indi wala book yofi xeet muy tribalism mun na ko indi de xeet is the most prominent one every day ñu ngi koo gis di ko dégg an abe kene baaleto kon lii raam ci ñag bi la jëm président Adama Barrow step up to the plate nga génn nga wax ak askan bi jël sa responsibility nga waxtaan ak askan bi am am am am ñi jiite political parties yi political leaders yi génn na leen ngeen jël seen matuwaay continuer di waxtaan ak askan bi si ñeneenti fànn yi ma leen wax nii ndax su ngeen sàgganee mooy indi fitna ci dëkk bi te képp ku ee fitna Betok, toog xamal ne yow fitna googu doo ko mun a fay soo demee ba and I am saying this to our political party leaders if any of you if any of you believes that you can instigate violence that would allow you to come to power violence of any sort nag ak fu mu munti jógee ak nu mu ti jógee wéera yëfi diine la wéera a ah, am am ah, politique la wéera yëfi xeet la wala yëfi suuf la soo sagganee seetaan ko ba fitna am ci réew mi wallaay soo toogee di nga bugg a fay fitna boobu te doo ko mun a fay and I am on record li ma leen dee wax dama ko dee wax weeraj ñi ci opposition bi la wala président Adama Barrow mu toog la ku si sàggan si yéen foog ne bàyyi dëkk bi becoming unstable instable wala chaotic wala problématique am am danga dafa tax yow nga score political points pour mun a wiin election yaa ngeen nax sa boppa su dëkk bi jaxasooyee da nga win election boobu wallaay di nga bugg a fay safara soo su noonu te doo ko mun a fay so kon lii raam ci ñag bi la jëm suñ politiciens yi maa ngi leen ñaax ngeen génn maa ngi leen ñaax ngeen jóg maa ngi leen ñaax ngeen waxtaan ak askan bi maa ngi leen ñaax ci ñeneenti fànn yii ma wax ngeen engage ci askan bi pour ñu xam it's not okay pour ñu ikkati fitna dëkk bi ñun ñëpp a ko bokkate ñoo ci am and no single person is better than the next one the world is a civilized world. We are going towards um, mostly closer to civilization. It's a global village. we Gambians are all over the world ñun Gambians yi ñu fu ne ci àdduna bi di am façon ñu teraanga bu nekk kon lan moo tax suñ biir dëkk ñu ni neen munuñoo jàppante foofu mënuñoo jàppale wante te ñun ñëpp ñu bokka ñun ñëpp ñu dëkkatu geeda ku fi feebar bee bu gaddee nga nekk manjaago doo dem lopitaan ngene docteur yi saraxule fa nekk because of loolu du ma faj docteur yi saraxule du ma faj because manjaago laa moom saraxule la doo dem lopitaan nga feebar ngene am am am am am docteur am joolaa laa fa fekkate man pour laa du ma faj doo dem nawek ñu dog sa kuraangi kër bi ngene soose laa fa fekkate man olof laa soose du ma defaral suma mita bi wala du ma toppatoo doo dem immigration soxla passeport ne man suwanka nga fa fekka te yow jaaxanka nga du la toppatoo kon nañ leen bàyyi di pull these tribal cards ak yeneen cards yi as it favours us foog ma xaasal loolu nag ndax dafa am solo su ko defee ñu gisee foofu ñun ñëpp su ko defee ñu gisee foofu ñun ñëpp am na ku ma doon explainal benn story ne benn waaye moo dugg ci biir plane bu mu duggee gis am jigéen gis airplane ci biir airplane bi mu gis benn cheikh bu toog di am am am ak sikkimam mu ne kii muslim la fi mu toog noonu mu dend ak kooku toogu rek mu ne na ku jóg na kooku jóg ci saasi wala moom mu lii mu oo am flight attendant si create commotion ak chaos foofu noonu si biir plane bi ne nañ ko teggi dafa yuuxu ne nañ génnee kooku noonu foofu cheikh bi si boppam ak humilité am rek mu jàngal ko lesin moom mu jog génna foofu noonu ne ko it's okay moom mu move to a different place mu ngi téye kurusam de wirda di def ay mbiram jigéen ji tàng affaire ba bugg a dee ne waaw lii du fi am nangam ak nangam ak nangam eventually naka lañ mujjee to cut the long story short doomam bi mu àndal kim teg ci booram moo doon lekka lim doon lekka ñu saaf leen lekka lim doon lekka mu coog bim coogee am am am am mu fatta mu soxla CPR geskan moo ko siif docteur Muslim bim doon am am am am lifi noonu kim doon ŋàñña kim óoluwutoon ku waxoon ne du toog si booram lu tax bu doomam bi demee ba bugg a dee waxut ne kii muslim la kii talibaan la kii dafa bomp leen bi kooku moo ko rescue kon yi nu mel luñ war a bàyyi xel la li ñu mel luñ war a bàyyi xel la maa ngi leen a ñaan gambien si nañ leen bàyyi suñ xel bu baax a baax a baax bot enwut xam na lu bopp antan yëfi réew du lu ñoo foyee and nobody should try to politicize this tribalism has no place in our country and we must make a concerted effort to fight it nañ leen ko tegee boor su lolou weesoo nak mbokk yi ma ñëw ci topic gi tay bi nga xamne ne la doon bëgg waxtane ci lima gis Banjul man lima gis Banjul neexuma te lima ma naqari ko wax political party yi ci rew mi a tout men te xam ngeen lima bubah, wax bu baax xam ngeen lima wax bu baax ngeen balal ma dama jos exiker ma pak suma moto bi rek very defet muna jakarlo lo ak yéen wax it's very important ñu bay suñ xel ci li nu mel political parties yi dañ bari ci réew mi Gambia a small country will less than um, um, um, uh, with a little over 2 million people nga xamne um, registration bangi jos jeex ni barki démba ci dimanche ji IEC génneeguñ sen official numbers yi as far as I know pour wax ñaata la we are close to a million registered voters wala bok lu ko jege su dee su million dinañ ko jégué bu baaxa baaxa baax Gambien si nañ leen bàyyi di nax suñ boppa wan million voters ñu ne ñaata political party multi party democracy is important democracy is important anywhere in this world waaye ñun Gambien ci luñ tëgga rax ci xànjaar luñ tëgga rax ci xànjaar this is not okay and it's not funny a whole country cannot be leaders the whole dëkk mënuñoo ñëpp ñëpp mënuñoo bokk nekk njiit ful deka, ñëpp mënuñoo bokk nekk njiit it's not possible are you kidding me démba from the information that we've gotten as of yesterday Esafal was supposed to register his political party the lead council of the TRRC as of yesterday on the newspapers as well ñu gis um, Ibrahima Soriba President Barros' alleged best friend childhood friend nga xamne mom president bi ci bopam mo tudda turam ci bim toge es bi mo wax ñi ko jégué ñoon kim wax ne moko daan ci mathematics Ibrahim soriba Ba nga xamne bi triyes jot na génné daw jéeg nee na président bi wàcca na sàmma ngoram na sàmma kadom mo digon Gambien ci né ñetti at la tok gor ca kadom bala mo waxit bi three years jot na génnee ñoom Ibrahima Soriba ñoo génn foom di Gambia for years ak peace and peace building ne ñoom kat dañ ñëw pour jàppale président baro pour mu taxaw continuer mandaayam bi ko réew mi jox juróomi at yi ko constitution bi jox juróomi at yi ko luwaaye réew mi empower pour mu toog Ibrahima Soriba moomu démb moo génn ne dafa foom Gambia Jamaa Party Gambia Jamaa Party. Are you kidding me? Are you kidding me? This is the latest information we are getting. let's stop deceiving ourselves this shows who we are as a nation Lee, dafa one, who we are as a nation we need to be serious we are not ready for prime time at all ñun Gambien si pareeguñ dañoo waaj rek waaye pareeguñ naka la benn dëkk di ame up to twenty five or thirty political parties ak ñaata am independent candidate gis nañ fi kar am am Jeng the former rapper am am ki nga xam ne daan rap génn na independent dafa taxaw pour nekk président ñu gis fi kam hazali al alhazali waaw bankole momin mu genna ki ñoo wax rastaman presidential candidate bi that's working at MRC momit genna na am sampa ndendam ne dafa taxaw independent ñu gis kitabu di comedian PDP ne dafa taxaw sampa ndendam and all these people are serious about what they're saying ñu gis gaanu génn si in addition to all the other political parties gis nga Gambia yóbbu dëkk du yëfi caaxaan people can contribute to the development of the country through different means maa ngi leen naan arrête yéen ñëpp xam ngeen ne demu leen fenn most of these people you would imagine ne ok dañ ci duggoon dañ doon jéem a taxaw because ñu ngi yaakaaroon ñu ngi yàkkamti woon ne ok waaw suñ pare su fekkee ne constitution bu es bi dugg na dañoo am ñu am multiparty democracy I mean fifty plus one vote si ñëw su boobaa dinañ bugg a pour coalition so ku def bugg a dem form coalition dinañ ñëw si ñun so that at least bi benn sagar position ni sax dinañ ma jox wala dinaa make noise tànqale ci biir réew mi ñu xam ne man it maa bi lii ak lii la lii laa mun lële laa mun to have cheap publicity because it's a moment to have free media publicity ku ñëw si ñun dinañ la jox platform sa right la as a citizen who is seeking to occupy the number one office um, in the country sa right la sa yelleef la pour ñu jox la sa gédda waaye nag just because yelloo nga dara ma wat wadlen wala ma wat ko wala ma xamal len xamal suma bopane because da nga yelo dara rek taxut ne dang ko wara jël mané dara because dang ko yelo taxut nga war ko jëli dar tas dar tas you can be entitled to something is not everything that you are entitled to that you go for da nga wara a sa bop ba xam sa poids mun nga ko yelo keneen yelloo ko keneen yelloo ko but ñeneen dañ ko gën a yelloo wante suñ constitution yi The cabinet has made it so simple for anyone to become president but standards should be set if something becomes so cheap and so easy being the number one citizen of the country you yëfi caaxaan nekk ki nga xam ne yaay jiite réew mi dafa am obligation yu bari yu la war yoo xam ne dafa soxla nga am xam-xam yoo xam ne dafa soxla nga am qualities wala ay màndarga yu bari pare pour nekk njiit mun a nekk njiit responsibility bu mag a mag a mag a mag la te bari te su ma sañoon ñu jéem koo understand presidential candidates yu taxaw ñu ci bari have nook lu just because constitution bi may na leen rek ne su fekkee ne mukkalaf nga am nga 21 years of age yaa ngi wér sa am am am dara jotul la mun ngaa am e, e, nangami votes mun ngaa fay wan million dollars wala five hundred thousand su dee da ngaa def independent am war ngaa mun a am five thousand register e, voters card rek qualify nga amaana mun ngaa am loolu waaye ndax am nga di wherewithal ndax am nga di capability ndax am nga di leadership qualities ndax am nga xam-xam bi te xam-xam is not only going to school xam-xam nekkul nga dem toog ci bank rek A B ak C nga jàngal lu noonu grade one to grade wala nga dem university or college am certificate yàlla def na sax suñ dëkk ñi jàng ñoo ñu ci bari ñoo ñu gën a disappoint ñoo ñu gën a yàqal. ñi ñu jangal ñi gëna a ñu gëna mëna indi fitna ak problème si dëkk bi yenn yi ñu gëna mëna def corruption ñu gëna mëna mislead public bi ñu gëna mëna selfish just because you are entitled to something doesn't mean you should take it President baron ak wacce na bayyi presidency so low nga xamne ne golo yeeg gong yeeg ñëpp bugga nañoo nekk president fim nekk Wache na solo. just because you are entitled to it just because sa left la doesn't mean na danga wara dem takaw. Danga wara said lu make sense Dien urun na danga na fitnal de kabirek. Mang na edanak rek ne aret. Aret. Nyi takaw independent candidate yu bari yeb. Bulen leen foyantoon Bulen ñi bu Bulen jakase nit yen tamit Gambia is too small but it shows where we are as a people either ñi taxawal seen political party ñu si bari selfishness la selfishness seen bopp lañ gis ak seen njaboot wala seen askan wala otherwise amna luñ soxla ngeen taxaw ne da ngeen a jéem a def seen kéemtalaay kàttan su ma taxawee dinaa def lii dinaa def lele yenn rhétorique yi ngeen a spiw si boppam sax dafa wane how clueless you are about the issues affecting the country how clueless you are about li nga xam ne moom ngeen war a def yóbbu réew du yofi caaxaan just because mun ngaa taxaw rek ñëw Gambian Talents ñu jox la plateforme nga dem yeneen plateforme ñu jox la fa plateforme pour nga taxaw wax amin nit ñi gis la ñu create benn ñaari whatsapp group ne waaw diw sangam parti wala diw sangam for all lii léeg-léeg yéen ñëpp. rek tax ngeen génn foog na yéen a ci nekk foog na yéen a ci nekk a few people nekk seen gannaaw di leen push either is a way of being able to uh, gang up and organize criminal activities using politics wala book su fekkee ne yëfi uh, njuuj njaaj ak tappale ak use politique taxul leen a jóg kon am na leneen loo xam ne moom ngeen nekk di def billaay sista Aysatu si naa kër sax nag léegi laa joge si office bi egsi naa kër sax nag ba dama am pour toog si moto bi rek pour def lii as I get in the car suma boppa baa ngi fees tepp xam na ne su ma duggee ci kër gi duma ko mun a def moo tax ma ne xaaral ma génn waxtaan ak askan bi this is too much is getting out of hand is getting out of hand we have too many political parties in the country too many presidential aspirants and nañ arrêté nañ arrêté yëfi réew du yëfi caaxaan président Barrow wàccee na baabi soo loo daal golo yeeg gong yeeg ku ne bu ganaa ñoo nekk président not to disrespect any am am uh, am am profession but ci jamono ku bari ñu bari xamoon nañ fi ñoo riis seen gannaaw yi xamoon nañ fi ñoo riis seen gannaaw yi léegi nag let's look at it in perspective ku mel ni Essa Faal Gambians had so much hope in him. People um, um, um, respected him and respect him still. People believe in him. People believe he did a wonderful job. ñoo gomloo Gambians yi ne dama ñëw pour contribute to suma réew bi ma baatande du ooyee am naa a lot of international opportunities pour nekk ci biti pour def lii pour def lele ne dafa ñëw pour jàppale Gambians yi pour ñu xam dëgg bi dem ci TRRC bi. is a platform, a national platform, where he got an international platform, where he got free publicity. Free publicity. dégg nañ ruumo bi you call Lam Lame. They call Lam Lame all along TRRC bi jeex report bi si boppam submit agulen ko to the president of the country yéen a ngee liggéey pour jema defar defar lolu the next minute ngena da nga form sa political party bopam ñu gis ci time yi Covid bi nim profito yi di dem di joxe ay maaloo nekk on the ground di deal ak young people bi mm-hmm. ñu bari admire ko ci loolu no wonder ñu ne ñuy def philanthropism no wonder ñu ne ñuy def liggéey yu bari ñu leen a jiiñ ne dañ am personal interest wala political agenda even man mii liggéey fii into philanthropism sax people ask me this question all the time yu mel nii moo tax nit ñi ñu ngi ma koo laaj waxtu bu nekk the last time Bima maa joxe lecture at the University of Washington the first question that Dima students yi laaj non profit bi nga establish nii di serve the West African community here in Washington ndax danga ko def because danga am an agenda pour get into politics because ñu bari loolu lañ def they use philanthropism get into I mean am um, the people's heart win people's heart especially the vulnerable people su ko defee ngeen mun taxaw su ko ngeen taxaw is very important nañ bàyyi di nax ni ñi nañ bàyyi di take advantage of people vulnerable people for that matter I didn't expect personally ne Essa Faal dina doon toog ne dafa sampa ndendi boppam use na Gambia national agenda bi national platform pour gain boot national and international recognition moo I have no doubt ne he has the credentials I have no doubt ne probably am na qualification bi ndax war naa mun a yóbbu réew mi am na xam-xam am na amin am am londo bu baax and am na international exposure bi as well liggéey na fu nekk ci àdduna bi experience bi am na ko can he be a good president probably yes waaye du ne luñ la may yëpp ma fàttali leen du ne loo yelloo luñ la may yëpp da nga ko war a jël and yaa ngi jeopardize the integrity of the whole TRRC process because jeexagut joxe joxeegu leen seen report ci boppam joxeeguloo seen report ci boppam it's rather unfortunate invite on naa ko pour am ko fa an interview a couple of weeks ago mu ne ma ne he is holding on to interviews after July 12. And the rumors that have been circulating around, Mwene July 12, Lamor launch party, which was yesterday. According ma wax Sibopam Limawak, Dumamuna grant interview be after July 12. But Enwood Hamna Lubopa Anton. kon Essa Faal ak ñeneen ñi ñëw di taxaw yëpp you stand very little chance that's the bottom line Tu fekke ne da nga foog jaar ci tiaraat si bi and I'm saying it because out of ñi form political party ñu ci bari they did not utilize a national platform comme ning ko defé motax ñu xassal la they did not utilize a national platform like you did it free publicity ki dem fu nekk ci aduna bi aduna yeb tek sen boti ci ko Gambia ngir TRRC is of interest is of interest to the international community. Gambian yu bari if the endorsement you have with TRRC is what you think is gonna translate into votes my brother Mangla ngi laa wax nga ko bu baax it's not it's not do I doubt your potentials and capabilities no kon maa ngi ñaax askan bi maa ngi ñaax askan bi ñu bay suñ xel all these new political paatis ak independent candidates that are coming up arrêté leen lem leen seeni dëbës ngeen delluwaat ci li ngeen nekkoon ngeen delluwaat ci li ngeen nekkoon let's look at the different political parties ñu seet naka lañ cee branché woo especially who we have similar ideas with they may not be hundred percent am na nu demee liñ bugg ak li gaay bugg du nekk gis-gis bi du nekk benn hundred paa yi nekk foofu ci place yooyu noonu koto yi nekk ci place yooyu mag ñi nekk ci place yooyu noonu ñu si bari si ñoom mag nañ màgget nañ te ci suma gis-gis ñoom ñooñu yëpp war nañoo joxe lenge yi ñu bari si ñoom war nañoo joxe lenge yi ndaw yi war nañoo pare pour take over seen dëkk ahankay moo power to the youth ndax ñooy màggi ëllëg yi suñ amee maxaama yi ak lépp luñ soxla war nañoo mun a take over na len pay jital jox len lengue yi ñi samp ay ndenda yu es nañ naka la seen political ideology align with ñu dem ñu join gaay ñu bokkatu geeda ñu seet naka la ñoo effect change within those institutions li du dem de li du dem ñaar fukka be fanwer be am juróom fukki political party si suma gis-gis lima gis Banjul la wax de te lima gis Banjul man neexuma te luma naxari dina ko wax ci ma gis-gis li ma gis Banjul ñu bari si ñuy form political party yofi coalition moo leen ci doon dugal ak free publicity lii la rek coalition ñu jëlee ministerial position jox leen ndax su fekkee ne réew mi am na thirty different political parties ñëpp come together besides am am am lifin bi ñëpp come together besides the sitting government ñu ne dañoo former coalition thirty political parties yooyu ndax dañoo am thirty ministerial positions wala ñeneen ñi ay ambassadors dañ bugg a nekk wala ay directors ak different pro place yoo xam ne ñooy ñoo ñoo nekk ci boppi nguur gi fitna rek ngeen fee ekkati si comme li xew 2016 mooy ñëwaat xew fii li xew Sénégal ak yeneen place yi coalition suñ ko formé tamit am euh, euh, in principle laa nekk rek it will not be anything binding is nothing loo xam ne dafa nekk ci constitution yi réew mi ki leen fa teg mun naa toog tey tey tey tey tey ëllëg mu faagaagal leen yéen ñëpp su eboo ngeen xam loolu su eboo ngeen xam loolu. ñu ngi dégg talks are in high gear to have APRC pour ñu coalesce ak ak ak ak ak ak ak NPP lépp luñ fa wax mun nañoo génna teggi sarta yi it's just like bi président Barrow toogee loo wax ñu ne la loi bi constitution bi juróomi at la ko may lu ngeen a nangutoo tamit as coalition na ngeen xam ne this is not something that is going to stand it's not going to be in the constitution du loo xam ne dañ ko binda ci constitution yi réew mi si loi yi réew mi is in principle ndax mun ngeen a suu su leen neexee yes but but Enward xam na lu bopp antan most likely su ngeen suyee dem kooti du mujjee fen nde kon président bi bi mu daaxee may Ahmed Fatty mu génn a kaas ne lii lañ nangutoo woon ci am euh, lii bi ci coalition 2016 nde kon su daaxee OJ Jallow mu génn a kaas ndekoon su daaxee Fatmata Jallow Tambajang mu génn kaas ndekoon su daaxee lawyer Ousseynou Dabo ak ñoom Lamin am am dambu di ba gars yi ñu génn kaas ak Amadou Sané ñu génn kaas ak ñeneen ñi nekk ci coalition bi ñi ci nekkoon yépp président Adama Barrow dàqaleen su fekkoon ne toog coalition rek moo leen a may doole boobu noonu ndekoon ngeen génn kaas dem ko te su ngeen demee koot win waaye maire kayit ngeen bindoon boo xam ne is in am na su ko neexee mu toppa ko su ko neexee du ko toppa su ko neexee mu toppa su ko neexee du ko toppa kon ubbi leen seen bët yi unless ngeen bugg a dem build seen CV si rek wala bugg a use politics pour enter into some criminal activities wala am ay diplomatic passports wala opportunity pour travel around the world wala establish yeneen connections pour mun a taxawal seeni business yeeg yeneen yi ngeen bugg a def kon Gambien si nañ leen wise ñi ñëw ni yëpp di ñu wax ne dëkk baa ñu ñor lii lële lële ñu ci bari si ñoom they are very insincere in my view su fekkee ne toog nga sampa sa bopp ba gis ne am nañ lu mut am am am ñaar fukki parti ak ñaata indépendance yu taxaw gis nañ fi daaw suñ système mari soog génn make announcement ne dafa taxaw as an independent candidate di oo yeneen political party yi nga xam ne ay at ñu ngi sampa seen denda ñaar fukki at ak lu tegal fukki at ak lu tegal ñeneen ñeneenti at juróomi at lu tegal mu ne ñooñu nañ bàyyi li ñoo def ñu ci bari si ñoom pour ñu ñëw ñu uyu ko moom pour ñu bokk ko ñu bokk ak moom. a good number of them can be educated maybe jàng nañ bi am nañ xam-xam but you don't answer every call you don't answer every call. ken si ñom togu ne man ma tok bu ga taxawal suma bop ko wax mu ne la nit ñama jital ñaata nit ñola jital nit ñi ñoma wax ne ma jitu nit ñi ñoma o yo bu rew du yo fi caaxaan man lima gis Banjul neexuma te li ma naqari dinaa ko wax ma ngi naan arrête nañ len bàyyi the selfishness that we apply in most of the things we do if not everything motax be demuñ kanam as a country that is why we haven't gone far as a country is not okay moo tax ñu des gannaaw ci lu bari ndax mun nañoo dimbale réew mi in different aspects si fànn gu bari su dee business nga am jéem a la establish sa business bi nga jàng sa business bi xam ko understand ko invest a lot into nga enhance ko seet naka nga employé ay doomi Gambien jàngal leen métier empower leen def leen foofu noonu. su fekkee ne béykat nga seetal sa mbéy moomu naka nga transformer into a modern um, modernized um, agro business where you will employ a lot of people in addition to the fact ne dinga indil Gambians a lot of things so xamne dinga produce enough content bo xamne ne Gambians sen bopa dinañ ci njeriñu dinañ ci gis sen bopa nga produce lo xamne dañ ko soxla lu mel ni lu mel ni dugub lu mel ni gerte am mboxa lépp loo xam ne dañ koo soxla nga process ko in a way that Gambia would not only be able to consume it ñu ni neen di nga create enough wala close to enough loo xam ne ñun suñ boppa dinañ ko mën a consume locally ba pare export ko internationally nga yombal price bi for the Gambians this is one way boo mën a dimbalee askan bi su fekkee ne yaa ngi yëngatu ci wàllum agriculture su dee nappakat nga nappal ñu ay jën process ko yombalal price yi jën bi ci réew mi and make sure ne tekkee nga ko ba mu àgg ci level boobu nga provide employment process it production ba exportation it's very important ñu understand doomi réew mi dañ war a gis seen bopp ci li ñoo def suñ mas gi nekk ci media bi nañ utilize suñ plateforme nekk di voice of the people di gindi askan bi di waxtaan ak askan bi di leen jox information bo xamne ne dina leen jëriñ an set naka la ñoo mëna def be provide employment for the young people ak ñu nekk ci dekk bi ñu gur lu suñ bir de ñu ngee goto goto in our own little ways at least lum bon bon su wer de su ñaar fukki xale fan fanweeri xalé ñetta fukki xalé dinañ sa ko o about sen keri thanks to our efforts thanks to our efforts ñu ngi jangal eh, ci ñaar ñetti at yu passé temer jangal nañ lu mu ñaar témèr ak juroom fukki xalé multimedia related skills ñen nañi ñu ngi ci ñun betay difa liggéey di faraatu ñenn nañu dem nañ di liggéeyal seen boppa ñeneen ñi yeneen leen a gis ci yeneen media houses yeeg plateforme si nekk ci dëkk bi without fear or favour this is our little contribution in addition to the fact ne ñu ngi nii di gindi wante ak yéen Gambien si di yokkalante xalaat ak yéen foofu laa mu ne foofu laa mu ne yokkalante xalaat ak suma mbokki gambien si lu ndaw lu ma yàlla may wala lu ñu wërsëgal xalaat bu ndaw bi ñu taxawal ci loo xam ne ndaw yi dinañ ci mun a njëriñu am lu ndaw lu ñoo mun a yóbbu seen kër weer bu dee ñu génn ci strit bi bàyyi tambaambalu gi bàyyi jaay am am criminal activities yi ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ko doon war a def this is what is expected of every citizen ku nekk si loo yëngatu mun nga cee contribute maa si Essa Faal gi could have stick to his TRRC that could have been his way legal mind la am he's a legal luminary na use loolu noon to his advantage mu jàngal askan wi wan yooni Gambian si génne dëgg bi a di TRRC su pare any other related area mu nekk fa wala boog mu continuer si justice ministry bi seet naka la moo mun a transformer that department that ministry does he have to do this only by becoming president déedéet déedéet expérience am bi mu am locally ak internationally mun na ko use pour develop ak improve the justice ministry fu waay am xam-xam fu waay mu ne nga jàpp fa soo amee sa compagnie nga seet naka nga ko enhancer lopitaan yi docteur yi faa liggéey ñu jàppa foofu noonu maa si kitaabu gi comédien nga bégal askan wi jàngal askan wi mu stick to gi stick to jàngal askan bi di théâtre di génnee ay xisa di génne ay am am productions di dramatize nit ñi seen life pour jàngal leen pour reeloo leen pour bégal leen Did he have to get in politics in order to help the Gambia or save the Gambia? Did it. Did it. Banki Mune software developer working for the MRC. de pare it am company bu bo boo mungi a defar ay natural tea ak yooyu noonu ndax mun ta continuer foofu nga xam ne mu ngi fa xaaya mu ne ñaar ba si ñetti nit ñoo xam ne train naleen leen di leen jàngal ndax mënut a xaaya ñaar ñetti nit ñooñu mu yóbbu leen def leen five thousand young people through his company ndax mun ta enhance tii bi moo defar noonu jël ko toppatoo ko defar ko ba nga xam ne dina saaf Gambien su bari tii natural tii herbal tea suñ wonjo suñ kinkiliba bi suñ mbor mbormbor bi ak yooyu noonu yëpp mu process ko lijjanti loolu naka la ko enhancé ba lijjanti loolu noonu ba taxaw gambien su bari diko njeriño diko nan mu paré jël diko export bitim rew pour jaay Gambia work with MRC any other department any other place to see how best we can develop modern technology security cyber security there are so many technology related stuff Lo xamne mom jangana ko amna ci xam-xam mu set naka la dimbele réew mi ci fànn waaye ndax Presiden president rek la muna dimbele askan wi dedet dedet docteur Lamin Bojang right before tuba korite bi ti la fi dem form patem dem register patem bi security background la am foofu la don si medical background bi la am mom docteur Lamin Bojang could he not help the country with the security system génnee nañ ko def ko diplomate he was in the diplomatic service he has a lot of experience gis nga yóbbu réew du yófi Gambia Yo réew du yofi caaxaan ku nekk foo mu ne foofu nga war a jàpp nga war a jàppalee mi and not ku nekk bugg a nekk njiit du dem ntitaa du we are not ready for prime time nañ arrêté nag a all these people trying to enhance themselves and their families are they trying to get cheap popularity are they trying to get free publicity are they trying to become president so that ñu mun a taxawal seen boppa ni président Adama Barrow di def ñu ko may ay gift wax naa leen ko si gannaaw du ne luñ la may rek nga jël ko bi président ba Adama Barrow taxawee ñu ne courant dafa am Mankamankounda balaa moo toog Mankamankounda amut électricité ñu tok all of a sudden ne free electricity mu ne lan ekaan mo ñew um um, am am ne dafa bugg electrify bor bobu nonu ndax mom amut di opportunity pour wax ekaan mu dem ci yenen area si si si si si reumi. mi ndax mënut ta wax ekaan lolu why did he have to take it ker giñ ko sampal mu ne xaritam bu baax moo ko ko sampal ne ko dang day am ay gan soo nekkee njiit danga am ay gan yes even though sampa nga boor bi xaaral ma sampal la fële xaaral ma sampal la fële must you take everything given to you nekk président war ngaa xam ne bribery corruption taking gifts even su la ko luwaay réew mi mayee sax du ne luñ la may yëpp nga war a jël du ne luñ la may yëpp nga war a jël président Barrow waaye luñ ko indil mu àkki luñ ko indil mu jël moom si boppam moo ko wax li ma leen a wax nii moom si boppam moo ko wax. when he is he was confronted by some of these questions about some of the things yi nga xam ne am na ko du ne luñ la may rek danga ko war a jël du ne luy loo yelloo rek danga ko war a jël mun nga ko yelloo waaye keneen gën na la ko yelloo mun ngaa sonna keneen gën laa sonna mun ngaa ñàkka keneen gën laa ñàkka sa ngor daf la wara a may yenay nga xamne kat du ne duñ la may yep nga jël c'est doyal give others a chance give them the opportunity and the ability to have some to su dee lu bax luñ la indi rek yow nga jël ko kenen kan mo am lu bax ak kenen kan amul lu bax Gambia nañ len bàyyi suñ xel yóbbu rew du yofi tiaxan yéen ñii di seetaan ku si am aspiration pour dem nekk président sa right la sa yelleef la waaye ndax danga ko war a jël already xam nga ne amuloo benn chance yéen ñii taxawal political party ni yëpp su ngeen toogee aide seen boppa between you and your God oor na leen óor yàlla ne yéen du ngeen gagné amu leen benn chance pour win 2021 election bi six months into the elections ñu ngi ci December nii December naka ñu ngi si July rather today is July 13th and we are talking about December 4th here you know you have less than six months pour presidential election bi to happen you know you don't have any structures you don't have any mechanisms pour win election si dëkk bi óor na leen óor yàlla yéen ñëpp dooree ko si Lamin Bojang mi sampande ndam bu yàggul nii léeta sampande nda doore dem ci am am am kii nii naka Essa Fall mi doon mi war a dem ci ñoom euh, euh, Soriba Ibrahima Soriba ak ñoom Kitaboog ñoom Bankeeg all these people kenn si yéen has a chance of winning the election in Gambia with our analysis boot en wut xam na lu boppa antan race bi mu ngi between UDP ak président Adama Barrow that's the fact APRC can be a major player if they are to form a coalition with any of these parties there no doubt suñ demee Barrow wala ñu dem with UDP they may win am um, am um, am um, am over fifty of the votes comfortably APRC still has numbers ñan ngaa wax. possibly looking at our analysis, with everything that we know, you can talk about DDC coming next. And doy, you get so already you. But all these people, the reality is, and I'm saying it, election in Gambia, unless miracle happen, is between UDP and President Adam Barrow. APRC is a determining factor. It's a determining factor. Lo bañ bañ nar bi serel ko this is just a fact. To anybody else who, who is coming to form a political party or standing as an independent, you are just dreaming. Danga, just dream. Hana, maybe it's a way of you just having free publicity and market yourself or your, your agenda or whatsoever, or preparing yourself for the future. I know Dr. Ismail Assisi, yep, they have no chance. Nyom Bibi Dabok, all of them, they have no chance. Nyom Ganu, all of these people have no chance. It's just the fact. My father, you can ask all of them. They will tell you, yes, oh, Sunne, December 5th, I mean, ñom ñoy occupy uh, number one marina parade ñom la. ñom celebrate li lele. They can make those rhetorics. Ken nak du nekk ci xare paré ne That's just the fact. But the reality is they have no chance. They have no chance unless Nyobuka capitalized on this, Zach, a lot of people, including myself, didn't know Banki. Didn't. When Kitabu started this political, I mean, talk, ñu bari joxe nañ ci xamaale ko ci ñu Marie I never knew Marie Shock until she made her announcement Ibrahima Suriba, the Gambia for five years then ko xamee ñu bari soo whatever the case is, they are using it to their advantage. They are using it to their advantage. waaye nag maa ngi leen a aidé ñu xam ne yóbbu réew du yóbbu caaxaan they need to bi prepared they need to do a lot of research man dama leen a interview ñoom ñëpp. dama leen interview ku ñëw ne da nga bëgg a nekk président suñ rôle ñoo xañ Gambian si Gambian nga am nga di opportunity we will give you the opportunity and to talk to the Gambians through our platforms Gambians and front of the Gambian, ñu ñoo top around the world are following us ñu ñoo toppa we will give you that opportunity pour nga waxtaan ak ñom waaye di nga xamne issue ci sax they don't understand them basic things The subreme bebuganeka president. Wahumanedangawara am 100% knowledge on governance or how a country is run. But every sector of society, warnga am basic knowledge about it. su fekkee ne déglu leen ma su fekkee ne da ngeen a insist kon ma challenge leen si loolu ndoog yéen ñi wax ne da ngeen bugg a yóbbu réew mi dem leen ngeen gestu affaire yi agriculture is the backbone of the country lu am solo la pour ngeen xam ko économie réew mi lan moo ko doxal lu ngeen war a xam la ak ban plan ngeen am pour naka ngeen a yóbboo réew mi pour make sure ne provide ngeen employment and create a lot of opportunities for the youth of the country which could be linked to am am am am am our foreign policy and a lot of things. nit suñ daw yi dem ci backway bi di dee foofu noonu every single time ñu ngi ñoo call di ñu jox these informations. In the past month, one and a half month, we have written about four or five stories or announcements of young people who either went mad or crazy in the back way, New demoon back way ba far dofee fa yàlla am jël Kelly. xel yi wala am fa accident wala ñu de, fa ñu buga a delloo seen body back home wala ñoo xam ne they are missing for years seen bokkay gisuñ leen yéen ñi ñuy constantly you must have seen this nothing less than five stories in the past one and a half month that we have written about our young people in the back way you need to know what you need to have a policy on migration, immigration. You need to have a policy on deportation. You need to have a policy on a lot of international stuff to have a thorough understanding of how these things work. So, ma toogee dégg kenn si ñoom taxaw ne suñ eh, eh, deport Kenzi Gambia. Are you kidding me? How much do you understand it? What power are you going to have to prevent uh, uh, other countries from deporting people in your country? you can negotiate and you can do things there are ramifications Your hamne ne da nga need Gambia is a signatory to a lot of international treaties and protocols and you will be breaking those protocols to fake ne tonga, toog nga di nga and the general public the greater good of the society you will be putting in jeopardy for trying to protect a chosen few in this case people that are to be deported amuloo benn am am am am am mandate of course can you negotiate deals? Can you delay? Can you go back and forward and lobby for some incentives? Yes. waaye ne duñ deport kenn loolu ku ko wax des nga am knowledge am am knowledge of of of of of how this thing works and I see some of them dispute loolu health wér bu yaram yi bi askan bi war nga cee am xam-xam bu bari ak loo ci mun a def wér bu yarami dëkk bi war nga see am xam-xam ak yow yan jéego ngay jël pour saafaraal ko to make sure ne suñ fànna wér bu yaram bi our health ministry is taking care of lopitaan yi ñàkk garab am ambulance yi nga xam ne dawuñ am uh, uh, néeg yu bon na ni ñuy fanaan si biti am at these hospitals lack of equipment poor pay for our people lack of proper sanitary materials and all the other challenges you have in the healthcare sector We mu am am a way a policy of how you are going to address these things gaaw nañ suñ toogee as politicians su ngeen ma taxawalee dinaa def lii dinaa def lii dinaa leen defal lii dama ko doon wax sax ba 2016 bi wax ci élection bi ñiy taxaw député ñu bari suñ ñëwee taxaw di dig seen nit ñi ne su ngeen ma sànnilee karta excuse me dinaa leen defal lii dinaa leen indil ndox dinaa leen indil courant dinaa leen defal lële dinaa leen defal lële naka la ñooñu understandé woon sax what the role of a deputy is what the role of a national assembly member is fatte nañ wala xamuñ ne ñoom seen responsibility is to make laws and serve their oversight functions ñaari yi mooy seen major responsibilities as national assembly members you can imagine if somebody is contesting di taxaw ne dafa bëgg a nekk député di dig nit ay ndox ay courant ay buuxul ay tali ak yooyu noonu it shows you how much we are aware or we know what we are even getting into yóbbu réew du yëfi caaxaan just because ya may may nañ la nga mun a nekk politicien rek doesn't min ne da nga war a politique so ku fi toog su presidential election jeexee député yi ñu ngi ñëw ñoom tamit ak mayor yi député bu fi ñëw di la tànqal nan la dinaa leen indil ndox dinaa leen indil courant mu ngi leen a nax ndax loolu du liggéeyam liggéeyam mooy defar loi wecci loi enact laws change laws amend laws, make new laws. That is their responsibilities as well as serve as an oversight to the society, the government institutions, and society as a whole, parastatality and society as a whole. Li is seen responsibilities as ay so su ñëwee di I wish you don't buy into it. It's good that you get into politics You understand these their responsibilities Have ne soo toogee fànn réew kaaraange réew mi sécurité dëkk bi fi mu nekk nii is very fragile is very gullible ñu ngi toll foo xam ne ni ñaa ngee lekkante comme dëmma left and right ku nekk lu neex waaye def fu ko neexee nu mu ko neexee people are scared to leave their di in broad daylight nu ngi ñëw di jam ni ñi paaka ñu ngi leen a rey ñu ngi leen a agressé sécurité réew mi ban plan nga am ak lan nga put in place ak soo toogee lan ngaa defal ni ñi pour kaaraange réew mi lan what will you and guess what the most important is the how képp ku leen wax ne dama bugg a taxaw the mos important question bi ñu koo laaj mooy dinaa def nangam ak nangam naka nga koo defee wi need to know how they want to do it and how they will du it we need to know how they want to do it and how they will do it wax bi rek yomba na dinaa def nangam dinaa def nangam dinaa def nangam naka nga koo defee lañ bugg a xam. te képp ku ngeen a sànnil karta Gambien si képp ku ñuy sànnil karta na base on lim ñu wax ne dina ko def ak ban plan la am pour def ko su leen waxee plan bu jot a dégg lu mun a dugg seen biir boppa yi ngeen sànnil ko karta ku leen wax plan boo xam ne plan bu ndoxee la bu leen ko sànnil a lot of them are not talking in their manifestos they are not talking policies they are not talking an agenda ci luñ nekk ŋàññante saagante xasante dinaa def lii naka kii lii la def kële lii la def di blémante loolu rek surtout nag ñaari parti yi nekk ci bopp yi fi di UDP ak NPP ñu ngi fi di blémante di wante xel o kii cross capet na kii ñëw na fii kii jël na fii ñu ngi seet niti kan kan moo mun a xëcca niti kan pour mu ñëw loolu mooy seen politique ñoom kan moo mun a xëcca niti kan pour mu ñëw and they are not talking any policies ñu ngi ñu ngi xasante ñu ngi intimidatante and I'm making life harder for the greater number of Gambians. And it's very unfair. This is the reality of our country. Manlila gizbanyul, gis Banjul te Whether it's health, education is key. Ban plan nga am pour revamp suñ education system bi. Complete overhaul lañ soxla school su bari ci biir réew mi whether in the combos or in the provinces amuñ ay school supplies amuñ ay toogu amuñ table xale yi dañoo toog ci suuf di dem school I mean there is no electricity classroom yaa ngi daanu am taw bi dafa dugg ci seen kaw amuñ ay black blackboards seen wanaki ñu ngi yàqu some schools don't have bathrooms xale yi dañoo nekk foofu extended amount of hours teachers yi nekkuñ di leen fay ñu ngee dem on strike doctors yi ñu ngi leen ñu ngee dem on strike nurses yi whether it's at university to the primary level or high school level what plans do you have in place to revamp our education system pour ñu am a modernized education system boo xam ne xale yi dinañ mën a jàng gis seen boppa an doxal liñ war a doxal pour réew mi dem kanam ndax xale yi tey yi ñooy magi ëllëg and their future important pour ñu toppatoo ko school high school I know this because every single time young people are coming to my institution asking for help asking to be enrolled sometimes you even see it demba demba demba go back and scroll three five videos down from this video you will see a class I was having with the interns at Gambian Talents on Friday and you see young people writing on there commenting to say that they want to be part of this ñu ngi school ñu ngi ne kunchidara. young people finish high school and they are sitting home what do they have going on mooy trigger ñu dem si back way bi trigger ñu nekk bandi you see all of these things are linked if you take care of the education system if you take care of health if you take care of the economy if you take care of security they are all linked soo gisee security concerns am am na lu xew liggéey amut ci réew mi nit ñi jaaxle nañ desperate nañ a nañoo liggéey bu bugga nañoo toppatoo seen njaboot yi bugga nañoo dawal ci oto yi neex yi bugga nañoo am ifanaa la fita kuutu tay lale bugga nañoo dëkk ci kër yu nooy yi a nañoo dëkk ci kër yu baax yi ci kaw taax yi bugga nañoo lekk ci chicken yeeg yu baax yi a nañoo am si jabar yu rafet yeeg jëkkër yu baax yeeg yooyu noonu if it is not available mooy tax xale yi di dem di engage in criminal activities these things are linked suñ provider les xale yi yoo xam ne mun nañ faa jàngee not only ñu jàng bot suñ jàngee ba wàcca lan la ñoo mun a def pour mun a am liggéey ndaw yaa ngee jeexal I have different people including my family members ñoo xam ne jàng nañ ba jeexal university ñu ngi toog they don't have work they don't have employment. ndax nit ñi dañ war a dem jàng rek fay fifty thousand forty something thousand dem si tertiary institutions every year ñu fay over two hundred to three hundred four hundred thousand ak coono bi ñoo daj yëpp jàng e four year degree ñu jeexal pare toog amuñ ci luñ jàppa and yu think ne jàmm dina am ci réew mi ngeen nekk ci pale bi di yaataa yumbe yéen nag seeni njaboot yóbbu leen ñu dem bitim réew jàng in the best universities provide them with all kinds of incentives ñoom ñu nekk di dund ci biir dëkk bi is this fair to the people moo tax geen war a indi seen bët yi politicien bu leen wax ne dinaa leen indi lii ak lii ak lii laaj leen ko naka lam koo indee the different sectors mention naa leen culture youth and sports religion these are all different areas that you need to be able to take care of they are all interrelated so yéen politiciens yi dem leen ngeen sàkku xam-xam si areas yii ma wax leen every sector of the society sàkku leen ci xam-xam gisi kisi kisi kisi leen gestu leen do thorough investigation to have basic knowledge if you have a team that put together a policy for you on each of these things go to these departments go to these places inquire ask find out what you can get at these places and you take care of it you have no chance in 2021 that's just the bottom line all of you newcomers in the game everybody that is registered this year or last year amulen ben uh, chance it's just the bottom line te dinaa leen ko this is not to hurt anybody's feelings Amule and chance you stand no chance of winning any election in 2021 xanaa miracle ñëw xanaa miracle ñëw therefore it is important ñu buy suñ xel as Gambians just because sa mbokk ñëw na ne dafa bugg taxaw politics doesn't mean ne da nga war a support kooku lan la am on the table Boom, bum nekk sa mbokk rek tax ngeen koo jay commencé di mobilize santu fiw nit yi ngeen a mobilize yaran deya out of the one million voters if you don't have up to 500,000 or 300,000 voters is you have a very slim chance 300 to 400,000 voters so ko amute you have a very slim mm, chance of mm. winning today am nañ one million people ñu register which we are very close to if you don't have up to three hundred thousand voters you have a very very slim chance ak kan si yéen ñaata si yéen ñoo mun a mobilize that many people nañ leen waxante dëgga nañ leen waxante dëgga nañ leen waxante dëgga yóbbu réew du yofi caaxaan bàyyi leen parti yi ngeen a form ak independent gi ngeen wax ne da ngeen a taxaw for their your own selfish interest ku nekk seen deep in your heart nag yéen politicians I know you do listen to me yéen politician si. aide leen seen boppa toog leen ngeen waxtaan ak seen ngegenaay ngeen arrêté go and compliment the efforts of the others whatever deal you are going to have with them ngeen bàyyi nit ñi ngeen a confuse ak dëkk bi ngeen a jaxase 25 or more political parties xeju ci réewi Gambia it's not with 1 million voters card compi compi compi compi xeju ci dëkka bi is the bottom line bàyyi leen nit ñi ngeen a foyantoo let's stop being selfish and start to see country first nañ leen commencé di gis suñ dëkk bi first nañ leen commencé di see things for the greater good of the people and not our own individual selfish interest for whatever that interest is nag for whatever that interest is let us see the greater good of society ak li ñoo def ban njëriñ laa amal dëkk bi su ma tampee su ma ndendi boppa ban value laa aat ci dëkk bi ci political scene bi ban value laa aat ci political bi lii du yofi caaxaan man li ma gis Banjul neexuma te lu na naqari dinaa ko wax every day nag or every week su ma amee the slightest chance I will do a video su ma gémmiñ gaa ngi fees every day I continue to see new things that are happening that continue to amaze me that I continue to think about Sister Aissatou wax na ko ci gannaaw ne I cannot solve the Gambia's problems yes but I will contribute my part I wanna be on history I want to be documented ne def naa suma part fii la ma yàlla mu ne may may man fii laa mu ne ci wax ak askan bi ak not only wax but actually jëfee ko lépp lu ma prij ma jéem a seet naka laa koo practice jàppalawante askan bi ci fu ma nekk nag ci am am Amérique gi nga xam ne fi laa nekk léegi toppatoo suma njaboot stay out of trouble ak of course Gambia gi nga xam ne fa laa jógee I take pride in supporting people. whether here or in Gambia. And I want to continue doing that. And tangibly, it's there. We are doing our part. You continue to see them. You continue to watch them. You continue to monitor them. And you see the improvement that is happening. I barely have time to do anything on the Gambian Talents TV lately. But you see young people doing things. You see young Fat Samba and the Beer Gambia show that they are doing lately. It's gaining momentum. I continue to train them and show them way and the skills. And it has tangible evidences. Touching the lives of 250 young people in three years is a big achievement that I am very proud of. Putting food on the table for about 30 young people every month is a big achievement that I'm very proud of. In three years. being able to empower some young people less than 25 years old establish an institution for the young people run by the young people guide the code 100% and you see them by the day ñu dem to an extent of ñu ngi mun a pride proud of themselves ba ñu am ay moto lu nekk di dem di régler di toppatoo seen soxla yi and these are young people that could have been abused mostly females for that matter you know suñ young sisters yi all in their 20s ñeneen ñi ñëw foofu as little kids from biñ ba fi ñu àggal leegi am seen jëkkër yi ba ñenn ñi am seen doom yi in under my watch within three to four years it's a it's an achievement it's an achievement ñeneen ñi establish seen business yi boppas it's an achievement ñu ngi ron seen family si they stay out of trouble these are young women who would have been abused suñ koto korop yi suñ koso yu yàqu yi suñ koso yu ñàkk yi téye leen di leen caxat caxatee because amuñ ci ñoom yërmande dinañ leen doon téye ku si soxla dara si ñoom ñu abuse la sexually jël la nax la njuuj njaaj la yóbbu on toos jox leen opportunity seemingly whatsoever just to be able to sleep with them biiral leen ba pare abandon leen so taking these young people off the streets is very important to me and I'm very proud of and I think every Gambian fi nga mu ne war nga faa mun a jàpp kuy oddoo làmmiñ soo noppee rafle ñun duñ noppi dañoo continuer di wax rek dañoo continuer di wax and we hope ñi ñoo waxal rawatina ñu am xel yi dinañ déggal ñoo wax ñu jëfandikoo wax naa ko démb nag ndax barki démb suñu yàlla indiloon yonent yàlla Muhammad wala yonent yàlla Isa ak yeneen yonent yi ak malaayka yeeg saxaaba yëpp ñu occupy suñ government bi kii nekk président ñi nekk ministers ñi nekk directors ñi nekk permanent secretaries ñi nekk ambassadors ñoom ñooñu fee wecci wuñ jikko yi fee wecci wuñ jikko yi duñ doon dem fen we need to be more serious people we need to love our country more we need to see country first more than individual interest personal interest family interest Then war a njëkk a first and it's important we have that sense of patriotism and nationalism have a sense of weism instead of meism we all put together our selfish syndrome syndrome of meism to use weism the Gambia will be paradise in this world because ñun bari wuñ te yalla def na blessing suñ dekk ma ngi leena beggé di leen gërëm di leen santa kàddu gi li ci rafet ci yalla la li ci ñaaw ci ñun la ndiam su xébu la rek am luma gis suma dekkate neexuma te luma na xari dina ko wax ci dokku askan wi su ma ne lutax Gambia du dem ñu ŋàñña ma ci xasma ne dama négatif te correction la laccé te ñu ngee def yi ñoo def fee ñu ngee am ay twenty something thirty something political parties fee ku nekk yaa ngee toppa sa selfish interest fee ñu bari ñu ngee jëfandikoo ñoom seen mbiri boppa fee ñu ngee dem di yàqante di ŋàññante di saagante di xasante di bring each other down fee jàppale wante wuñ dem kanam suñ dëkk bi dinañ saxaar rek waaye duñ tàkka duñ dem fen di leen bëggee di leen gërëm di leen sant su dee bi mooy seen first time ngeen ñoo topp ci Gambian Talents TV amin mun ngeen a subscribe to suñ channel bi on YouTube Gambian Talents um, promotion Facebook the same thing Gambian Talents um, promotion like leen suñ page bi ba pare follow ko toppaleen ñu Instagram Twitter Snapchat TikTok LinkedIn all these social media platforms am um, as Gambian Talents promotion ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm a sampandi mu bàyyi because of yow mi share video bi démba bi ma ko waxee ndax barki démba gis naa ñu bari share ko it's important it's one way that you can help pour gindi askan bi nañ leen fàttali wante ndax fàttali dina yokk ngoom su ma defee video yow mënulooy def video ku nekk fi nga munee rek foofu ngaa jàpp wax naa ko ci gannaaw ku ne fi nga munee foofu ngaa jàppee yow fooy munee mooy nga share video bi du la wàññi dara yow. waaye guess what bi am na keneen ku ko gisutoon ku amut opportunité pour gis lii dina ku si jot a gisee su ko defee mu gindi ko mu make the best decision that yow yaa tax noot man suma kàddu gi de yow mi ko siyaa moo tax yàlla lu nekk daf koo jaarale si ceen ma ne leen ne ku ne mun rek wala am yelleef ci dara wala ak ketee la ñantooti rek wala sa raayit la rek warta tax nga jël ko kon nañ leen bàyyi yenn raayit si ñu jàlla chia leen bi chia leen bi chia leen vidéo bi jërë ngeen jëf ba beneen jamono